maam Cheikh Seydi Hadj Malick yëg-yëgu réew mi di yëg-yëgu monde bi yëpp ndax man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir far yukram dayfahu képp koo xam ne kii gëm nga yàlla gëm yonent bi gëm bis penc na nga teral sa gan kon président ah, Mahamad Alhaaji Mouhamadul Bachir Diomaye Faye bu ñëwee fii ci kër gi tey doom ci kër gi war nañu ko teral ndax li nañu teral gan waaw moom doom la ci kër gi ay njabootam doom lañu ci kër gi soxna président Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh ko jox moo ko yar Waly Faye baayam Cheikh El Hadj la nekkal kon jomaay bu ñëwee fii Mouhamadul Bachir jomaay son excellence président bu ñëwee fii ñëw na këram waaw moo tax sëñ Babacar Si moo tax sëñ Babacar si recevoir ko nii yal na yàlla doon doolu suturaam jërëjëf yàlla li bëgg ci réew mi yàlla na ko yàlla defa waaye bu sëriñ bi ñaanee rek ñaan yëpp nangu na dëgg la ah, ah, am nañ ci yaakaar bu baax a baax muy lu ama am solo ah, ba tax na rek kilifa gi Aïcha ñëwal ñëwal ñu jéem a jël rek suñu papa ji itamit bu dee mën na def rek ab réaction salaamaaleykum kilifa gi voilà donc moom nag daal dina daal dina dem xam naa rek dañu bëggoon jël ay réaction mais xam naa ni rek daf koy daal di denc fi mu ne nii nag comme na ma ko waxee rek li nga xamante ni ah, moo fi des mooy dañuy taxaw rek xool ana ñuy génn lan la ñuy ah, daal di ah, teg suñu loxo par rapport ak seen taxawaay ak taxawaayu ki nga xamante ni mooy en tout cas le président de la république ci. dëkk bii di euh, Tivaouane voilà. waaw teewe naa ko nag wax dëgg yàlla mais li waral discours xalif bi ak sunu pape Maodo El Hadj discours président bi la dafa jaar si yoon mu nekk un message extrêmement important. am na une conception de la laïcité bu mu wax bu nga xam ni bii loo indi indi laïcité voilà bu dë nga jox Tiwaawoon cëram c'est au-delà de la religion c'est un phénomène culturel euh, Notre-Dame de Paris dafa lak française euh, Emmanuel Macron de Notre-Dame de Paris waaw ah, ndaxte c'est un patrimoine culturel c'est pas un patrimoine religieux euh, le plus grand poète français Victor Hugo a consacré sa plus grande œuvre à Notre-Dame de Paris moo tax le président Macron a tout pris en charge dépense yëpp moo ko def alors que c'est un pays laïque et que Notre-Dame de Paris est une euh, a une nature religieuse mais dafa ignorer cette nature religieuse xam ni li nga xam ni moom la war def c'est une valeur culturelle moo tax itam Tivaouane Touba les grands centres religieux au-delà de la religion ce sont des centres culturels c'est le patrimoine national noonu nag le président bi waxee moo tax bu dégg tontu yi nga xam ni sëñ Maodo wax na ko été pendant dix ans euh, député à l'Assemblée nationale sénégalaise. J'ai toujours exprimé mon point de vue d'une manière directe. Tu vois, millions ou millions de téléspectateurs. mais maintenant bés bi bésu Maodo la bésu yonent bi nan ko yemale si Maodo yonent bi jërëjëf donc euh, kàddu ya am na solo bu baax a baax ñu dégg ko moom mi nga xamante ni yëkkati na ay kàddu ci euh, li nga xamante ni moo war a xew tey ca vingt le président de la république yi va s'adresser à la nation waxtaan ak ñoom ñëpp nag njort waxtaan ak taxawaay bu ki nga xamante ni mooy euh, le président de la république parce que nee na jàpp na ni discours sur la laïcité bi nga xamante ni daal dina ko yëkkati notamment avec euh, la création du ministère des cultes euh, doon na loo xamante ni lu sénégalais yi doon xaar la mais tamit loo xamante ni dafay dëggal taxawaayu Sénégal ci li nga xamante ni mooy gestion des affaires religieuses en tout cas kàddu yooyu mooy kàddu yi nga xamante ni moom ki nga xamante ni euh, Mansour Sy Djamil wax na ko fii ci euh, wax na ko fii nga xamante ni mooy ci Tivaouane devant ki nga xamante ni mooy le xalif en tout cas général des euh, Tidianes ba tax na rek ñuy daal di ba tax na rek ñu daal di maintenant xaar génnub kilifa yile génnub ñi nga xamante ni en tout cas ñooy daal di partager ak ñun. voilà donc comme je disais rek ñu daal di taxaw waxtaanee la nga xamante ni moom euh, la fii le président de la république euh, daal di euh, yëkkati ci ay kàddu ñu bëri nag si ñoom daal di koy rafetlu bu baax a baax actuellement nag yéen a ngi seen ñi taxaw ñoom Mary wu ñaan ngi noonu ci ginnaaw El Malick Ndiaye itam mu ngi ci ginnaawam Bentalib Sow moo nekk noonu. Euh, sëriñ Habib si Biram Souley Diop ñëpp ñi nga xamante ni en tout cas ci délégation présidence euh, lanu bokk ñu ngi fii euh, jano ak ki nga xamante ni mooy kilifa yi le président mu ngi wàcc dafa mel ni ndax gis nañu le chargé de protocole wàcc na effectivement le président de la République sort mu ngi noonu di génn vêtu en blanc ànd avec sa première dame mi nga xamante ni moom papam muy waajuram bu góor am na histoire ak kër gi nga xamante ni ñëw na fi tey di seet si xalif bi loolu xalif bi moo ko daal di euh, nettali euh, fi mu ne nag ñoom ñaar ñu ngi daal di euh, ànd le président de la république mu ngi noonu ànd avec sa délégation di dem ànd ak ñi nga xamante ni ñooy en tout cas le protocole présidentiel pour daal di dem si jawiya bi def ziaram mais itamit daal di vivre en tout cas de la manière la plus belle possible li nga xamante ni mooy Tivaouane ak Tivaouane la daal di comme ni ngeen ko gisee nag fi mu ne nii le président est en de sortir mu ngi génn daal di euh, dem si zawiya bi pour siyaare mi tamit julliwaale benn yoon ci euh, langa nga xamante ni mooy leeri Maodo fii ci euh, Tivaouane loolu nag mooy li nga xamante mooy li nga xamante ni moo xew fii ci Tivaouane actuellement nag comme ni ngeen koy gisee dañuy daal di rek jéem a xool. naka la ñuy euh, àndee ak moom le président de la république ngir dem euh, si fi nga xamante ni mooy euh, zawiya boobule mais itamit pour mën a fekkee taxawaay ba muy am foofu noonu ca zawiya ba par rapport ak ki nga xamante ni tey mooy mhm, voilà. Eh, maire. Eh. Ah, waaw naa la woo waaw waaw nañu wootante kon incha allah